ma puissance mm-hmm. ah man de tabaski ren bii liggéey de laa ci bëgg waaw aw liggéey waaw waaw awee booy liggéey loolu wala liggéey nga foofu liggéey bu ma am baax na na nekk liggéey bu lew rek sama loxo bi di laaj benn góor ndax xale góor yi de seen xaalis ku ko lekk da ngay sëgg bëre te damaa fas liggéey liggéey bu ma am baax na sama yaay xar bu mag laa ko bëgg a jëndal ci tabaski gi sama bopp ca ba muy jënd sama greffage jël sama yére bu riche jënd samay dàll ndax kat damay ci kan Ndeylo borom États-Unis chéri Cheikh ak am jom ak am jom day liggéey rek di dimbali ay waajuram waaw loolu am na waaw waaw waaye awa man de kontaan naa ci yow mhm. yow de xale jigéen ñi xanaa war nañu laa a dégg ñoom moo xam ne événement jotee mhm. dañuy jël seen laay fa sacrifice ko mhm. daal di koy tayle ah surtout nag ñi nga xam ne ñu ñoo nekk si néegu sëy di sëy dañuy yéen seen jëkkër yi li nga xam ne seen jëkkër yi duñ ko mën a àttan imagine toi yow tabaski ñëw sa jëkkër yorul dara yow xoolal lu mel ni tabaski nga wax sa jëkkër na la indil xar mooy ne la xar nga ne xar mi rey mu dee rey mu dee la mu génn génnaat demaat encore dem obligé lépp indi la kuy ba boo ko laqalee tegal ko bu koy lekk du ko saf dara nag de ndax xam nga lan lay xalaat nu muy def kat ba fay bor kon nag ah gars war nañoo xoolaat seen bopp wax dëgg yàlla nag. terroriste lañ dañuy teg fitna seen jëkkër. ah dañ lay toog tiire de. sa xol sànq ba tey maa ngi fëgg faalewu leen ma. ngeen topp ci ay terroriste fii terroriste amu fi yow mi yaay terroriste bi da jël sa yoonu bopp. am ay xarit yu bees. ne nii boo nekkoon bomb da ngay éclater. man xam naa la sa jikko baaxul. li ma lay woo nga bañ maa jël. sa jikko daal léegi neexatuma man day tàq di fay mel nii gunóoru nawet. ma envoyé sama vocal liiroo may fëgg tijjiloo ma ma ne sa daax dugg. man maa laa envoyé vocal liiroo ko xanaa yow yaa am verte zone rouge bi. yow man depuis barki démb depuis keroog. sa message la nga ñëw sama téléphone. ma ne man maa la envoyé vocal yow. sa yow yaa def PV xaw ma PP xaw ma zone rouge yaa ko def. maa ko fi def maa ko fi def de. yoo la de. horreur ban. wax ju rëy laa fa wax. la ma ca wax de daa rëy. lan nga wax ci lan maman. ca vocal. vocal ban. Hmm, la ma ca wax de. eh vocal ban. tukkil na àdduna de. sama jëkkër dafa apa ay vocal vocal yaa yéen ada da ngeen rule rôle kii mënoon moom mënoon mau def rouge ke France ya Maju yow nga def Sénégal ça va si yow siapa man de jéem naa jéem nelaw mais mënu maa nelaw quoi dafa tàng xaw mu demee noonu dafa tàng waa mais yow sa vocal bi nga envoyé nii dafa gudd mais nga bëgg a def vocal une heure mais loolu ma koo déglu te et sax yow xool amul dara du fi suufee de. inna. Euh, déglu leen. yow nag xam nga lu ma bëgg nga ñëw ma yóbbu la ci sama paa bi waaw vocal bi mag boo ko liiree rek lu mu gaaw gaaw envoyé ma vocal baa nga woo ma appel normal. neena la mu jàppale sa jëkkeer kon foko jaarale fa lay jaar melal na sa kuti bo yar sa bir kër rek mbow gi mom du bari silenceur rek lay may yow xamna la xoolal gawal na nga lire vocal bi ñu fulaale teul ba muy mom sande ko wiccax yaama gëna xam waaw ma ngi lay xaar dégg nga ok yow ñi nga doon àndal ñëpp am nañ jëkkër dem nañ ci yi bu mu dess yow nal ben léegi am 35 ans. matu ko ko. léegi yow moom bu fekkee xam na dara lan moo tax mënu laa defal benn affaire la dem am jëkkër sëy am jëkkër comme say morom. maa ngi déggante taay benn waay. wala sangoo ci moom. sangu naa kañ lekkat bi moo toj. voilà léegi yow ki da ngaa bëgg muy sax si sëyam am si jaam ma doon xajam wala golo comme ni nga ko waxee mais da nga koy wax li ma koy digal mu koy def li ma ko teree mu bàyyi bu ma doon wala xajam loolu nga koy conseil mais doo ko jël di ko yóbbu ci ay sëriñ yoo xamante ne ni xamuñ ni ñuy bindee turu yàlla nga koy dugal ci ay yëfu dof yooyu. maa bëggoon l'amour bi seen diggante yéen ñaar gën a invisible. yow balaa ngay lijjanti suñu diggante ñun ñaar nga lijjanti sa bopp xool noo def ba am ci kër. lu dëgër ngay wër. mu ngi ci yoon ban yow doo mos a am ci kër góor ñëpp lay daw parce que da ngaa mën a fen. da wër di yàq dar di fenal nit ñi loolu xam nga ni yow kan ban goor moy jël risque di la ba daal la. man nak euh, ma plus yow mi lay jox conseil parce que tamit erreur yi ni du yow kese lay dal ñi mi dal fi instant bi bari na té tamit whatsapp bañ koy utiliser pour moyen de communication la mais du pour wax ci lu bon wala def ci lu bon mais légui dafa bari da ngay envoyer une vocal yakar ne vocal bi supprimer nga ko fekk resté na quelque part téléphone bi tay ji nga jël ko joxe ko keneen wala téléphone bi wad nit utiliser ko gis yi nga don wax ak vidéo yi nga don def ñu jël la partager la ci internet bi sa aduna yaq way bi dila top ba ci sey seut setat kon nak bo len di utiliser whatsapp del xol bu baax ne ngeen koy utiliser man dama xam sax puissance genre nit yi noy meuna ande ak ñom waxam ju bari muy melne ne perroquet ni dëgg la li wax dëgg la waaye non naa dama sutural bu daal ba ko liiree yow da ngaa suturaal sa bañ lay ko non ma def def nga ko léegi ma yeggee ko ko rek comme yaa ngi toog yaa ko doon wax loolu loolu lépp kay bàyyi ma yeggee ko ko rek moom bu ko defee. bu fekkee yow fii xoolal waxuñu waxu football xam nga lu ñuy wax fa nga nekkee ci dëkk bi nga fexe ko changer di wax dëgg yow lan la. ba pare chéri xam nga dafa tàng sax moom dama la bëgg mu jóg lu abal ma loolu laa bëgg bëgguma leneen de moom na jóg rek daal di may ñu ndànk tamit rek max bi lu si lay xewee mën nga bàyyi ma yeggal. bëggal jub nga may la ko ah, nga wax tamit. kii dama am lu may wax kii kay bu doon nit rek man dama yaakaaroon sax nit la tey laa xam ni du nit bu doon nit la li mu fi dégg yëpp waroon na jub abale quand même fii toog tamit ñàkk xor ko bëgg a dee. yàgg baax nga de yaa sa jabar naa óoróor kañ bu ñëwee rek óoróor la ngeen baal ma. kañ ngay jóg. daal ah, ma toog rek ma xaar mu kii. kon gàcce gi daal yow mën nga ko dégg. samay taal hmm? kadee xam naa ni moom ki la ngénte ki la tudd yow sa bisu ngénte bi imaam ku ñàkk fayda moo la ngénte moo la tudd kooku du imaam de. bu doon ah, imaam moom bu la tuddee am na yoo xam ne boo ko déggee moom. te. defoon nañ ko làmmiñu béy moom béy lañ ko rayee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 Diop yow arrête yow Diop yow nit nga yow lan moo sama yoon ci Badou sama yoon nekku ci moom man xam laa lijjanti yow laa lijjanti moom mu toog mu dem lijjantiwuma loolu yow kon moo tax yow ngay kër sa téléphone di ma woo di boobu ba tey ndax lan pour sama diggante man ak yow. léegi xale yu jigéen Sénégal moom nee nañ yee say appartement la moo mari moo naafaa moo chien loolu nag doom day jug man suis un sama ñu Sénégal fi faama matal kenn du ma nangu benn góor di stress te mii dina xam ni fu mu dugg ñi fu génnee noonu. yaa ngi doog a xam sama diggante man ak yow jekkul xam nga bëgg nga xam ko dama bëgg nga xam te bëriwul gis nga la la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 ma ne ko nag am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur am nga ñu ñun te dinañ la fajal say bu mu gàcce waaw lu fi lu ko metti woon man mii maay ki koy faj allo. oui. est-ce que xam nga ki la Mia. Zeyna Zeyna nit dafay neex a waxal nit dafay neex a waxal quoi surtout ku nitee. Zina lii waruma la ko proposé ngay nek fi di yuuxu di tëb dal ba ba nit ñi di la dégg pour lan ya. mën a suturaal sa bop ah. xam nga fuma lay wowe ma ngi fi ci digg dakaro ñay te yow xam nga man xam naa. maag yow du yom man dina jema sutural sama bop parce que tamit suma sutura bu fi xawé ko du kenn ku ko mëna défarat lu koy yak nak dama koy moytu mais yow yow bu fekkee mën nga ci mom dara yow xol noy def bu mu delu mais pa nga nan dañuy continuer dañuy dund man ak yow ci kanam mu ñuy xol xam nga sama doomu nay nga té man ak yow dañu yàgg té gëm na né suma ñëw fi Sénégal ma tok dila gis ci sama wet tuma ragal dara yow lan la xamoo lan la fii duma fi bouger te waxoo lan moo indi Sénégal li Sénégal sama yaay sax xamu sa yaay mais man sa copine la man ak yow dañuy